arbitre ba sifflé na combat bi dox ci diggante Ndoye Vitamine ak Vito Vito la ñu ci kaw wala boog Vito taxaw na Vito la ñu jàkkaar lool moo féete à droite Ndoye Vitamine na ngay jet Ndoye Vitamine na ñu woon ginnaaw Ndoye Vitamine boppam waaw waaw <laughs> combat spécial Ndoye Vitamine Vito Ndoye Vitamine ak Vito ñoom ñaar mbokk yi tolloo nañu eh, Vito door léegi Ndoye Vitamine remise doo fayu waaw Ndoye Vitamine jàpp na ca loxo ba daa bañ ku ba waaye boo ko bàyyee dana la dal Ndoye Vitamine boo bàyyee ku dana la dal de Ndoye Vitamine Vito boo bàyyee dana la dóor Papa Dia nuyu naa bu yàggee de buntu eh, bu yàggee buntu feeñ Ndoye ak Vito Ndoye vitamine Vito abi laata Vito bëre nañu ba mi-temps dellu si waat Ndoye Vitamine moo woon ginnaaw Vito la nu jàkkaar lool Vito cokkaas na léegi ndooy bi tamit jël na tànk ba kal na ko Vito man sax damaa mujjee sonn combat yi yàgg yi def may nalawloo combat yi yàgg yi def may seddloo doy vitamine ak Vito abit bi àtte na doy vitamine day delluwaat ardo doy vitamine Ndoye Vitamine ak Vito seen combat bi yàgg na Vito moo ñu wan ginnaaw Vito benn loxo bi rek la war a continuer di ko xeex. Seye Vito daa gëj a bëre depuis deux mille dix neuf ba tey bërewul. ba léegi. daa gëj mu perte repère ndax kàll yi teg ko fenn. kii am doy vitamine doy vitamine. mais Vito kàll yi dafa sori trop mu daan. biti bu ma ku ko ku ma ko kal ah mais lii du kalub lamb. du kalub biti. loolu moo gën a di ci tey bu ñu defoon entraînement ma war la ci kale ba mbindeef dootu la ci daan. mais mais mais dama gis dama gis ki nga xamante ni mooy Vito buy doo day gëmm. boo doon xool léegi mu léegi mu. li muy dóor du ko xool. waaw xoolal xoolal bu xoolee léegi mu dóor ko mu a yeewu. dóor ma da koy daan dafa sonn waaw sonn. Vito daan na ndey vitamine. arbitre ñu déglu arbitre. ñu déglu arbitre. Ah. naa buubu. kon nanu def ndànk. ñu déglu arbitre ñu téye ci. nanu def ndànk kon ñu xool la laa bi. di ñu téye ci. waaw waaw Vito Vito ndam la. Vito daan na ko. wax na Vito ndam la. sonn na sonn na. waaw. doo daan. lamba ngi noonu. waaw dañoo daanu léegi moo tax daana na booy waalo daa daanu léegi. munul ñàkk am na ndam day ñëw jege ko. bilaay bilaay ba léegi maa ngi koy meññee bilaay doomu naa lekk en jàmm di ko delloo loolu góor yàlla lañ nga ni tab bu mag bilaay ma toog lu yàgg kontaan may daw rek lépp rek ngeen ànd sama ngor bilaay bilaay bilaay laa bi ñu gaar ñoo sonn waaw combat bi métti combat jànk laa yombut mais lépp rek kii la ak sëñ Bamba su ma nekkee mbër su nekkee mbër kii moo tax dama koy tax ba bare kii mooy sama papa kii moo ma def mbër maa bañ ñaanal ay g ay souris ay gambien booy sama booy ndeysaan bilaay non tey tey nii la mënoon demee te su ma daanoon damay bàyyi bëre su ma daanoon damay bàyyi bëre waaw Serigne Bamba billaay walaay ñun ñoo war a doon champion dañoo sonn si làmb waaw dañ ma jox si grand combat a boobu daaru daaru ngol ku daan soxnaa la barki maam Serapha làmb la a maa ngi sant waa jàmm gën sant sama yaay sant sama a billaay la sant gaa yëpp waa jàmm gën tële maam jaar guy ga billaay waa Kokaaya Pape Dia Kader